dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñu ñëw ak yéen ci ab ndajeb suuf waaw siyaar boo xamante ne soxna Aida Diallo soxnab sëriñ Cheikh Béthio Thioune ba woon amaloon ca kër sëriñ Cheikh Saliou xalif bu sëriñ Saliou Mbàkke moom jëwriñ universel bu cantaakun wala aydakun yi soxna Aida Diallo soxnab sëriñ Cheikh Béthio Thioune ba woon demoon na ci fan yi ñu weesu ca kër sëriñ Cheikh Saliou di xalif ci sëriñ Saliou Mbàkke ngir jébbal ko ak siyaaram ca boobule siyaar mu ngi ci àndoon ak ay wujjam ya woon dëgg-dëgg ana nan la boobule ziar demee sëriñ Cheikh Saliou dafa profito rek ci boobu lee dajee ngir feddali waat kàddub xalif général des mourides te dankaafoo soxna Aïda Diallo di ko xamal ne moom sëriñ Cheikh Saliou du jalgati benn yoon ay ndigalu xalif général boobule te du wax mbaa muy jëf lenn loo xamante ne dafay woroo ak li nga xam ne moom la xalif général des mourides waxoon ca noonu ca la profito dal di koy fàttali kàddu yi nga xamante ne moom la xalif général sëriñ Mountakha Mbacké saxaloon ci ginnaaw gisee bu mu gisee woon ak soxna Aïda Diallo sëriñ Cheikh Saliou di xalifa bu sëriñ Saliou Mbàkke deful lu dul daal dëggal ab taalibeem ci ànd gu mu ànd ci bépp kàddu bu nga xamante ne xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke jotoon na ko amal ci mbir mi lee ca noonu mu daal di fàttali ah, soxna Ayda Jàlloo kàddu yooyu lee teg ci nitam di ko ñaax ngir mu sàmmonte ak kàddu yooyu lee ca na mu gën a gaawee ndax lu ko may mën naa génn ci njaboot gi maanaam mën na ñakk ab taalibeem ci këru murit ci tënk boobule siyaar wala ndaje bi nga xamante ne amoon na ci diggante soxna Diourbel de Thiantakoune ak Saliou Samb mi nga xamante ne moom mooy daanaka loxob ndeyjooram ànd kook itam ay wujjama wu ci mel ni soxna Batoor ak soxna Ayda Saliou ci kanamu xalifub Serigne Saliou Mbacke bile moom mi nga xamante ne dafa profité ci boobule jotaay ngir saxal ay kàdduk yiw ak jàngale yi nga xamante ne moom la xalif général kulli murid Serigne Mountakha Mbacke jotoon a amal waaye itam mu defee ko ci anim bu tegginu soxna Ayda itam fësal fa ab taalibeem li kenn dul fàtte kay mooy ne soxna Ayda Diallo defati na mëninam ca nam ka daan defee saay suy dem di def ay ziyaara ci yenn ci ay kilifa ci boobu leen dajeb ziyaara soxna Ayda jébal na sëriñ bi ay teranga yu baree bari sëriñ bi day na soxna si ay kàddu ñaax moomit ci ab taalibeem teewlu na ko gannaaw ndigal jëfee ay ca leen ñu dem jërë ngeen jëf البلاسي بان نزامته لخوت فلن أسي من منك يا الله الله بلاسي لقد مغفرة مات يا برادي تعنك يا الله أنت سكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جمي أسه يا الله علي يلاسي أحليتني أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أرضاك دير لاسي بانت كبارته لي خطفل لي خط من ككبي على الأجر يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارته لخط من ككبي على الأجر يا الله أنت الأسيس الذي وجدت في أباد إلى سوى الإيداع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

وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي يدي ولساني تفسدوا في دنياك يا الله أنت رئيم واسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم واسي أجو برحمتي Sëriñ Saliou borom jannatu ma xawar nag njabootu Sëriñ Béthio moom mooy njabootu Sëriñ Saliou te yow ñu yaay Sëriñ Saliou kon sa njaboot la kon ak njaboot nag day kilifaam njaboote ko saa su nekk dafa war di teew ci kanamam di yeesal ak taalibeem di yeesal ak kilifteefam ci moom ndax kat nag ñun ñii ñëpp daana bokk ñu te itam kilifteef bi neex leen lool ñu xam ko bu baax it ko jàpp moo tax mu toog ba yàgg mu ànd ak ci jaboot bi ànd ak ñenn ci taalib yi ñu àndandoo ñoom di àq ci sa kanam siyaare si la mm-hmm. sant si la ci taxawaay bi sant si la ci ñaan yi yeesalaat ñu taalibe ñaanalaat a taxaw ba tey waaw baax a رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي على أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزاد الله دعي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيب ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رحيم راسي أرجو برحمتك على أولاقياكم لن منك يا الله أنت رحيم راسي أرجو برحمتك على أولى يدر أن منك يا الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وأنت karaadi tudaara yàlla